bi ma xoolee titre bi xam ni vidéo la bu contenir ay kàddu yuy ŋàññ Seydina Limaamul Mahdi ak waa këram hésité naa pour ubbi ko ngir ñaari raison bu jëkk bi mooy wax ji yàlla subhaanahu wa taala wax ni inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'uula te mooy ëllëg moom suñu boroom dina questionner samay nopp ci kàddu yi ma ko doon dégtal ni may ni muy questionner samay bët di questionner it sama xol bu ñaareel bi mooy wax ji mu wax subhaanahu wa taala ni waqad nazzala alaykum fi lkitaabi an ida samictum ayaati illahi yukfaru biha wa yustahzau fala taqcudu maahum xata yaxuudu fi xadisin gayrih innakum idan mithluhum inna allaha jaamiu almunafiqina walkaafirina fi jahannama jamian te mooy fu ngeen fekkee aw nit ñuy diŋat aayay boroom bi di ko sabote bu leen toogandoo mukk ak nit ñooñu lu dul dañoo xuus ci beneen waxtaan ndax su ngeen toogandoo ak ñoom dangeen di mel ni ñoom te naafeq yeeg yéefar yi la suñu borom yamale ñoom ñépp lay boole ci biir sawar jahannam waaye par curiosité mujj naa ko ubbi pour rekk mën a yër argument yi nga xam ni kiy wax ci vidéo bi mu ngi koy avancé li ma doon séntu nag mooy gis ay wax yoo xam ni ci kuréer lay jóge mais li ma mujj gis mooy ay wax yoo xam ne ci ab dof la doon jóge ndax ki réer mooy ki xamul te xam ne xamul mais ki nga xam ne xamul xamul ne xamul moom ku yenu ay dàllam la lu jiitu may jeexal vidéo bi dem naa ci commentaire yi doon ñaan bañ a gis kenn ci samay mbokki taalibe muy commenté ci vidéo bu mel noonu mais malheureusement li ma gis keroog neexul ci sama xol te mooy gis lu bari ci samay mbokki taalibe ñuy commenter ku ci nekk ak sa façon ñii di avancé ay contre argument ñii di delloo li ñu leen di xas ak di leen ko ŋàññe maam yëg-yëg ci ne jot na sëkk ma fàtte samay mbokku taalibe lenn ci li nga xam ni ki ñu gëm dénkoon na leen ko yéen samay mbokk pas-pas bu sell bi ngeen amee dafa àndandoo ak facture bu cher boo xam ne faw ngeen fay ko te mënoo leen ka fay lu dul ci muñ muñ gu rafet li nga xam ni moom lañuy wax ci yéen di ko wax ci seen pas-pas di ko wax ci ñi ngeen gëm ci ay wax yu ñaaw xam naa bu baax li ngeen di yekk waaye manuma leen a wax lu ëpp li yàlla subhanahu wa taala waxoon ab yonentam démb ci suratul an'am te mooy qad naalamu innahu la yaxzunuka alladi yaquluun fa innahum laa yukadibuunaka walakin alzaalimiina bi ayati llahi yajhadun yàlla dafa jàkkaarloog yonent bi ne ko xam naa bu baax ne li ñuy wax métti na lool ci sa biir xol waaye du yow lañu weddi tooñkat yi aayay borom bi lañu jalgati te man lañu amal affaire maa ngi leen di woo bu baax yéen samay mbokk ci muñ gu rafet di sàkku ci yéen ngeen jëfe conseil bi nga xam ni Salahuddin ibnu Aybak as-Safadi moom la joxe woon te mooy wa in bulita bi shaxsin la xalaaqa lahu fa kun ka annaka lam tasma walam yaquli bu la suñu borom nattoo ak jëmm joo xam ne amul benn cër ci jikko koy tedd na nga mel ni dégguloo na mel ni it moom waxul mitit bi nga xam ni seeni xol moom lay yëg saa yu ngeen gisee sang bu tedd bi ñu di ko ŋàññ bu mu leen puuse mukk mukk ba ngeen di jëfandikoo dara ci loo xam ne kenn masu leen ko xamee ci ay wax ak i jëf bu nit ñi jëlee li gën a yées ci lu ñu amee jox leen yéen jël leen li gën a rafet ci li ngeen amee delloo leen ku ci nekk li nga am rek ngay joxe ndab lu nekk la ca fees rek a cay tuuru bu fekkee ni mënoo réussir ci yéegi nit ñi ba ci niveau bu kawe bi nga nekk bul permettre nit ñi réussir ci wàcce la yow ba ci niveau bu suufe bi ñu nekk ñoom te nag li leen suñu borom defal jàpp naa ni war na leen a doy waaju leen méngoo dinay am ndam ëllëg yawmal qiyaam waaju leen xas waaju leen bañ baamu xas leen alku dootul doon alam ndax loolu da leen a doyul fàttaleeku leen ni seydinaa limaamul mahdi yu lim leen digaloon mooy àndandoo ak dal ak provocation buñ leen mën a provoqué te jàpp naa ni provocation mënula féete kaw aw nit jóg ne dañuy rey Seydina Limaamu ci seen biir te pourtant digaloon na leen ne même loolu bu amoon bu leen sax yëngal baaraam bàyyi leen ko rekk ak boroomam mi ko yónni gaañaa ngay gën di jaxase nasaraan bay gën di xase te naa leen bés bu ñu tasee dootul tuddati rabbana fekk na bàyyi njiin nee woon ay taalubeem ku fi ñëwoon naan damay rey itam bu kenn jóg bàyyi leen maak rabbana ñu naa ko yaa imaamallah dunu muñ loolu limaamulaay naan tawakkaltu alallah wakiirlu naa bi rabbina wa man yatawakkal fa huwa xasbuh inna allaha baaligu amri qad jaala allahu li kulli cheyin qadra yéen samay mbokk li gën kawe loo xam nit yooyu mën nañ ko ci yéen weesuwul ay kàddu yu ñaaw yu ñuy wax ci seeni der lan yadurrukum illa adan te loolu jàpp naa ne wàññiwu leen dara boroom xol yu dand tuuti nañu ci gàkkal seeni der kallaa kallaa walaa yu danni su ma tatahara qawlu zawid danasi ma tatahara wa saatul maydaani laa yuxfiha ibaau namlatin sulukan fiha te nag lan lañ waxalul yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan lañ ko waxalul أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون شاعر مجنون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ساحر كذاب ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر كذاب أشر وي كتلة أبدفلة جبر كتلة فن كتلة ليلب وخلنا نتوين عليه الصلاة والسلام ko نتلمكم ndax jàpp ngeen ni man ngeen a mucc ci loo xam ni xayrul bariyati alayhi salaatu wasalaam mucc na ci mucc ci mukk ci àddina la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور moom la yàlla waxoon ñi àndoon ak yonent bi démb maa ngi waat dinañ leen nattu ci seeni bakken dinañ leen nattu ci seeni alal te di ngeen dégg ay wax yu ñaaw yuy jóge ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere bi ak way bokkaale yi waaye bu ngeen muñee te moytu bu ngeen muñee te moytu na ngeen xam ne loolu lu rëy la ca yàlla kàddu yu ñaaw yu ñuy teg ci seeni der mooy lu gën a kawe li ñooñu mën a def mënuñu ko weesu lan yadurrukum illa adan wa in yuqaatilukum yuwallukumul adbaar suñ jàkkaarloo woon ak yéen wan leen ginnaaw ci écran de télévision yi nga leen di gis ñuy yëkkati ay kàddu ak a yëngali mbagg te boo wéetoon ak kenn ci ñoom dangay am choc ci li ngay gis mës naa dégg kenn ci ñoom muy wax ci benn télévision ne alxuraan dafa wax ni yonent du ñëwaat ci ginnaaw muhammad te képp koo xam ne gëmm nga ni ab yonent ñëw na ci ginnaaw muhammad ci leneen nga nekk ludul lislaam jamono jooju samay at gën naa néew sama dret gënoon na tàng ma def samay pexe ba rencontré ko moom mi doon wax loolu ci këram wéet ak moom ci ab néegam ma ne ko dama la dégg démb nga wax ni alxuraan dafa wax ni yonent du ñëwaat ci ginnaaw muhammad te ku gëm ni ab yonent ñëw na ci ginnaaw muhammad ci leneen nga nekk lu dul lislaam ma ne ko ndax loolu mooy laayeen yi duñ ay jullit mu ne ma wax jooju day bi ma ko waxee yëg naa ci sama bopp ne wax ji ma wax wax ju rëy la ma ne ko afallahu salaf na yàlla jéggale li weesu waaye dama am question fan la alxuraan waxee ni yonent du ñëwaat ci ginnaaw muhammad mu ne ngàmm di ma xool ma ni ko xañ na danga doon def allusion ci yàlla wax ji mu wax ci suuratul ahzaab ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallah wa xaatiman nabiyin mu yëngal boppam ma laaj ko ne ko xaatimun nabiyiina bi kasri taa'i la ñuy jàng wala xaatamun nabiyiina bi fatxiha ban ci ñaar yooyu la ñuy jàng kan ci jàngkat yi moo ko jàngee noonu lan mooy position jàngkat yi ci des baat bi sax lu muy tekki kan ci mufassirin yi moo ko tekkee noonu ban ci façon yi tafsir yi lay def day tafsir alquran bi naql wala da koy tafsir bil aql wala da koy tafsir tafsiran batiniyan lan mooy gis-gisu mufassirin yi ci des ndax mufassirun yooyu yépp sax ak seeni tafasir dañoo jeexal maanaa yi nga xam ni alquran amee na ko maana yi nga xam ni moom la al imaamul doon wax naan laha maanin ka mawjil baxri fi madadin wa fawqa jawharihi fi lxusni wal qiyami mu ne teg ginnaaw gi mais leeral ko nekk alqaadi iyaad dafa wax ne xaatimu nabiyiina li muy tekki mooy akmalu nabiyiina xalxan wa xuluqan mooy ki gën a mat ci yonente yi jikko gën cee mat jëmm xamal ka ni am nay mufassiruun yu bari yeneen yoo xam ni tafsir nañ baat boo baat boobu ay tekki yu sori ak dégg-dégg bi nga xam ni moom ngeen ci am te mooy ni yonent bi mooy mujj ci ranwu yonent yi Muhammad moo mujj ci ranwu yonent yi manika ba ci ñi nga xam ni sax li ñu dégg ci xaatimu nabi yi na mooy prophétie ci Muhammad ibnu Abdillahi la ko tëjee même ñoom ñi ñi ci déggee loolu sax ni ñuy tekkee baat bi day uute ak yéen ni ngeen ko jàppe dañuy wax ni laa tabtadiu nubuwatun wala tatasharrau shariatun baada nubuwatihi wa shariati comme ni ko as-Safarini waxee ci lawaamiul anwaaril bahiya mooy que ni xaatimun nabiyin mooy que ni ak yonent du bees du ginnaaw ak yonentam sharia it du bees ginnaaw shariam wala laa nabiya baadahu tabtadi'u nubuwatuhu amul yàlla yonent bu muy yabal yonent gu bees ginnaaw muhammad ibnu abdillah ginnaaw gi ma xamal ka ni laa nabiya baada muhammadin muy yonent du ñëw ci ginnaaw muhammad ñëwul fenn ci alxuraan waaye waxu yonent bi la ci boppam te wax la joo xam ne dañ koo gëm ñun comme ni ngeen ko gëmee waaye nag dañoo boole gëm ko ak dégg ko dañoo boole gëm ko ak dégg ko ndax yonent bi nga xam ni moo ko wax moom ci boppam moo wax ne Isa day ñëw ci ginnaawam moo waxit ni àddina du tukki lu dul yàlla dina yabal al imaam al mahdi law lam yabqa min addunya illa yawmun la tawala allahu zalika al yawma xatta yab'atha rajulan min ahli bayti yamla'u al arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawran mu nekk nag ñaari wax yoo xam ne dañuy xaw a nuru ay wax yu contradictoire yonent du ñëw ci sama ginnaaw yonente yàlla Isa dina ñëw ci sama ginnaaw yonent du ñëw ci sama ginnaaw yàlla dina yebal al imaamul mahdi ci sama ginnaaw ba tax ay boroomi xam-xam yu bari taalif ci ay téere ngir leeral lan la yonent bi jublu ci wax ji mu wax ni yonent du ñëw ci ginnaawam mu doon wax joo xam ne saydatuna Aïcha sax da daan tere ku ka wax nontu ci yonent bi la jóge saydatuna Aïcha da daan wax naan quulu xaatimu nabiyin wala taqulu la nabiya baadahu yam leen rek ci xaatimu nabiyin mais bu leen wax mukk ne yonent bi ñoo ci ginnaawam ibnu Qutayba ci charxu mushkilil ahadis wax ni walaysa hada min qawliha naaqidan li qawli nabiya la nabiya baadi mu ne wax ji na Aïcha tere ne bu leen wax ni yonent du ñëwaat ci ginnaaw Muhammad jubluwu ci moom saydatuna Aïcha weddi li yonent bi wax ni yonent du ñëwaat ci sama ginnaaw li annahu araada laa nabiya baadahu laa nabiya baadi yansaxu maa jitu bihi mu ne parce que li yonent bi jublu ci yonent du ñëw ci sama ginnaaw mooy yonent boo xam ni day ñëw di fi jële li mu fi indi moom kama kaanatil anbiyaau tubaasu bin nasx loolu la ci yonent bi jublu mooy nabiyu tashriin buy indi sharia bu fi uut bu lislaam di fi indi alxuraan di fi indi beneen téere bu uuteeg alxuraan wàccuk yonente yàlla isa ak mission wu al imaamul mahdi yu daxante ak wax ji yonent bi wax ni yonent du ñëw ci sama ginnaaw parce que du kenn ci ñoom ñaar koo xam ni indi na sharia bu uuteeg sharia bu lislaam ñoom ñaar ñépp ci islaam la ñuy tënku te xëj na loolu mooy mbóot mbóot bi nga xam ni moom la cheikhu maxtaar loo doon jublu ci waxam jam wax te al imaam muhammadu saxiir nettali ko ci axiru zamaan wax ni a cheikhu maxtaar ne li yonnen ni yonnen dootu am ci ginnaawam mbóot la lëncul ba xam déy ba na ngay gëstu mbootam wax ja ak mahdi yook isa gëstul lu mu jublu ci wax ji te nga bàyyi xel ni ki ko wax moo wax ni al almahdiyu day feeñ isa day wàcc na ngay gëstu mbootam wax ja ak mahdi yook isa nga xam jubluwaayam mbaa nga laajte bu koy jomba libaas nee na fa yonent ba summi dàllam wa boroom moo ñëwaat solpeer ba toppaat ca tànkam ba libaas nee na fa yonent ba summi dàllam wa boroom d'abord boroom dàll wi ci boppam pa keneen moo ñëwaat te bi mu ñëwee jaarul beneen yoon bu Muhammad ibn Abdillahi jaaroon dafa toppaat ca tànkam ba waaye nag am na yoo xam ne du dugg ci boroom bopp bu tuuti en plus mbir mi it woyoful ahlullahi dafa jot ngeen comprendre doomu aadama yi te xam ni Seydina Limaamul Mahdi mbiram lu ñu nëbb la daf daan wax naan wa yaxluqu maa laa taalamuun wa ana mimmaa laa taalamuun yàlla nee dina bind ay mbir yoo xam ne du ngeen mus xam lu ñu doon te man du ngeen mus xam lu ma doon ku yàlla defalul tawfiix doo gëm ak sa xam-xam lu bari bari doo ko sax gis te wax dëgg yàlla war na jot ngeen jël ko comme exemple moom Seydina Limaamu ci tolérance lu ne def nañ ko ko ci ak dundam lu ne wax nañ ko ko waaye avec loolu lépp dafa comprendre woon doomu aadama yi daf daan wax naan bañuñu ma bañuñu ma dañu maa xamul ay yàlla sa ndaw li talul woon dara ngir rekk bëgg ñu aw yoon ñi xamul woon jàppe ka ab noon yaa rasulallah tere nan ka mu woote ilallah di ko xas jéebaane ka fillah jéem nañu sax raylu ka wallah yaa rasulallah xeex nañ ko ba génne ko dëkkam fu mu dem ñu yabal fa ku kay jam sàllaaw ku ko noonu du am ndam yaa rasulallah ñuy gën di ko bañ muy baale di ko wër di ko tooñ te du faale lu ñu def muy mooñ bañ a laale yaa rasulallah li may wax gaa yooyu nag nga xam ni seen bëgg-bëgg yépp mooy éliminer seydina limaamul mahdi li ma leen di wax mooy maa qaalahu rajulun muminun min ali firawna yaktumu imaana غير أني رجل مؤمن من أهل الله يظهر إيمانه أقول لكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بفرعون أك أو نيانم تخوي بور éliminer سيدنا موسى yalla daf ñu netali ci alquran ne ben way bu bok ci wa kër musa waajo xamne ne daf do neub ngëmam dafa taxaw ni len wa ndax da ngay ne bëgg éliminer waajo xamni fotam yépp mooy dafa wax ni yàlla mooy boromam te yàlla moom ñépp moo bind ñépp moom rek mata jaamu loolu la gëm te loolu lay woote jëme ci ndax kooku ngeen bëggee rey kooku ngeen bëggee éliminer mais bu fekkee ne li muy wax du dëgg mook boroomam la ndax boroomam lay sosal mais bu dee li muy wax dëgg la effectivement yàllaa ko yabal mais yat wu suñu borom di dóor ku weddi ab yonentam dina leen dal te kuy sosal borom bi ay mbiram du jub manuma leen wax lu ëpp loolu dellu di dénk nag samay mbokk samay mbokki taalibe ci ngeen toog fi nga xam ni moom la leen Seydina Limaamul Mahdi yu dëcc ak lu jamono yëngu-yëngu muñ leen muñ gu rafet lépp li nga xam ne yéen a ngi koy dégg ñu di ko wax sang bu tedd bi di leen ko wax te ngeen bàyyi xel ne al axlaaqu kal amwaal fannaasu fiiha bayna ganiyin wa faqir ay jikko ak alal ñoo yam nit ñi ni ñu séddalikoo ci ci alal entre ay richard ak ay pauvre noonu lañu ñu ci wàllu jikku entre ay richard ak ay pauvre am na ñoo xam ne ndeysaan amuñu ay jikko yu tedd même buñ ko bëggee amuñu ko il faut ngeen comprendre leen yàlla nag dina leen nattoo ñu bari ci ñu mel noonu waaye bul fàtte mukk na nasihata safad yi wa in bulita bi shaxsin laa xalaaqa lahu fakun ka annaka lam lam walam yaquli bu la suñu boroom nattoo ak koo xam ni amul benn cër ci koy tedd na mel ni dégguloo na mel ni it waxul bu la kenn xamul xamal sa bopp te ngay fàttaleeku foo mën nekk nag dix recommandation yi la al imam Mouhamadou Sakhir jox bul di xaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jëfi kenn kon nga jubal yoonu seydi saadati bul di xotti diine te bul xotti worma kon nga kamaal bul di réylu kon nga jubal bi tariqil jannati bul di séentu la sut bul di xeebit waa ji nga sut yàlla moo di buur bi fi sut moo di dul qahaarati bul di gestu waaju gëlëm ba di gaaral seydi limaam loolu moo di tooke ca wu di jëm qiyaamati bul di seet ci man mi ko wax ndax dama jubul badi di wax seetal maanaay li ma wax kon nga am hidaayati in uridu illa al ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi